Mesdames et messieurs, mes chères sœurs, chers amis, comme tous les Sénégalais, j'ai vécu avec une grande peine les manifestations de la semaine dernière marquées par des scènes de violence inouïes. En tant que mère de famille, je suis meurtrie par la mort d'une dizaine, de plus d'une dizaine de jeunes Je partage la douleur des parents qui ont perdu un enfant et je tiens à présenter mes condoléances attristées aux familles des victimes. Je souhaite également un prompt rétablissement aux blessés. À ma qualité de maire de ville, les images de destruction de bâtiments publics et de pillage de commerce m'ont fortement marqué. Rien ne peut justifier ces actes inqualifiables. plus jamais cela. Chères sœurs, chers amis, si je prends la parole pour me joindre à votre initiative, c'est d'abord pour dire que ces événements douloureux nous interpellent tous. État, collectivités territoriales, partis politiques et familles. Nous devons être plus attentifs aux aspirations des jeunes les aider à saisir les opportunités du temps présent et leur offrir des perspectives pour un avenir meilleur. M'adressant aux jeunes, je veux leur dire que je comprends leur désarroi et leur angoisse, mais je leur demande de ne pas céder au désespoir. Je les appelle au calme et à renoncer à la violence. Mon appel s'adresse également à l'État pour l'inviter à l'apaisement et au dépassement. Dans le sens de cet apaisement, je demande solennellement la clémence de la justice. Pour conclure, je voudrais vous inviter à consolider la paix. Tous ensemble, nous devons faire confiance au génie de notre peuple et aux ressorts sur lesquels notre nation s'est toujours appuyée pour surmonter les épreuves et reprendre sa marche résolue vers le développement la paix rien que la ànd ak dal ak jàmm. booy fàttaliku jigéen ñi depuis les temps ñi ngi yëngu ci lu jëm ci wàllu jàmm ñi ngi yëngatu ci lu jëm ci wàllu démocratie ñi ngi yëngatu ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu euh, fay ay ay walla euh, rapproché ay ñoo xam ne seeni kàddu dafa wute comité bi ne balaa muy wax dara mi ngi delloo di jaal. askan wi mi ngi delloo di jaal njabootu askan wi nga xam ne seeni doom ñoom la seen bakken rot ci xew-xew yu métti yi fi xewoon ñi ngi ñaanal aussi ñi nga xam ne am nañ ci ay gaañu gaañu sunu borom wéral seeni cër ñi ngi solidariser wu maanaam ñi ngi ànd ak ñi nga xam ne ñoo ñàkk seeni alal aussi ñi ngi ànd ak ñoom di leen jàppale ci métitlu bi comité bi teg si ne mi ngi rafetlu taxawaay bi nga xam ne pàcc-pàcc yi nekk ci suñu biir réew muy Sénégal kenn ku nekk ca wàll ba nga mënee yaa ngi taxaw di dox di wax ngir jàmm mën a ñëw fii am fii ci suñu biir réew ndax ñu mën a préserver li ñuy wax stabilité bi mooy dal bi nga xam ne buñ ko amul am leneen dina metti mais surtout cohésion sociale bi nga xam ne jàpp nañ ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xarñaar ñaar comité bi tamit comité jigéen ñi nee nañ ñi ngi gën a dolli ñi ngi encouragé bépp acteur boo xam ne ndax am na acteur yu fës am na acteur yu fësu bépp daal acteur boo xam ne yaa ngi jug ak ci foo mënta féete ci société bi di wut loo xam ne dina tax nit ñi mën a àndandoo ñu ngi leen di ñaax ci ñu wéyal loolu comité bi tamit mu ngi wax ne waxtaan yooyu nga xam ne ñu ngi koy def ak dox jàmm yooyu nga xam ne niñ koy def nañ ko woy di gën a doxal nañ ko woy di gën a dëgëral surtout ñu ngi jëm ci ay manifestation bi nga xam ne jàpp nañ ne dina am suba samedi 13 mars ñi ngi ñaax ñooñu nga xam ne ñoo ca war a teew xamuñu ndax am na wala du am dégg nañ ko comme loolu am na nag ñi ngi leen di ñaax ci ñu jàpp ne lépp loo xam ne war nañu kenn ku nekk ci liy dëgëral suñu réew aar suñu réew aar suñuy njaboot kenn ku nekk mën ci bàyyi xel bu baax a baax nga manifester ci jàmm ñibbi ci jàmm comité bi mi ngi daaneel waxam di wax ne képp koo xam ne kuréel nga ku fas ne mën a ñëw jàpp ci lii ñuy liggéey ci wut jàmm ak dal ak démocratie ak euh, renforcement des institutions et respect de l'état de droit ñi ngi lay tàllal loxo ngir ñu àndandoor mën a dox loolu ñun ñëpp. le comité des femmes leaders pour la paix la démocratie le respect des institutions et l'état de droit mise en place à l'occasion de la journée internationale des femmes le 8 mars 2021 pour réunir toutes les femmes politiques et de la société civile du Sénégal afin de renforcer le rôle majeur qu'elles jouent dans la préservation de la démocratie, la résolution de crises et la recherche de solutions concertées, le comité réitère ses condoléances à la nation, aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le comité marque sa solidarité à ceux qui ont perdu leurs biens dans cette épreuve. Le comité des femmes leaders pour la paix, la démocratie le respect des institutions et l'état de droit salue les efforts collectifs de toutes les forces vives de la nation pour un retour rapide à la paix afin de préserver la stabilité et la cohésion sociale. Le comité des femmes, leader pour la paix, la démocratie, le respect des institutions et l'état de droit, encourage l'ensemble des acteurs mobilisés à tous les niveaux de la société dans la recherche de solutions concertées. Le comité des femmes leaders pour la paix rappelle l'impératif de poursuivre une concertation soutenue et par conséquent en appelle à tous les acteurs à plus de responsabilité, notamment pour la manifestation prévue le samedi 13 mars 2021, euh, afin de garder en bandoulière Euh, la nécessité du maintien et du renforcement des acquis de ces jours derniers. Le comité euh, réitère sa détermination à poursuivre cette dynamique de paix et d'apaisement de la situation actuelle en étroite collaboration avec toutes les forces vives de la nation. Voilà la déclaration du comité des femmes euh, que nous venons de vous